moom lii moom maa la ko saa yoo dégg ñu ne la Eumeu Sène daan na Sa Thiès quatre appuis koy daane man maa la saa yoo dégg ñu ne Sa Thiès day daan Eumeu Sène day toog ci kawam day toog ci dënnam non Fadam kenn ëpp ko fit waa démb làmb ji nu mujjee Sa Thiès a ngi door bul door Eumeu Sène bañ na bul door Sa Thiès a ngi door bul door Eumeu <laughs> xaj yaramam bëri te bërekat foo ko mën a àgg day gën a assuré di bëri. Ah! asalaamaaleykum sama gars yi bégee naa leen j'espère que yéen a ngi si jàmm bu baax a baax man Fallou maa ngi si jàmm bu baax a baax yàlla na leen yàlla defal sutura xéwal ak xaalis bu bari bëri bari noo gars yi démb làmb démb bi neex na gars yi kontaan nañ combat yi neex na booy promoteur bi xaw ma fan la jëlee booy mais mais combat bi neex na am na ku ma woo mu ne ma non Fall gëj naa seetaan combat ma tax lu tax mu ne ma état bi fi nekkoon moo ma doon déranger rek mais lamb mosuma ko bañ sama gars yi balaa vidéo du commencé merci demee la vidéo amodez-vous bu leen fàtte yéen zone si benn suñu promo code 21 af la saa bu di nga am boni 155 francs léegi naa ko bis commentaire sama gars yi dañuy njëkkee ci image bu Balla Gaye ak Tapha Tine bi ñu xool ko ñu joxe suñu analyse no image bii nii bu dul montage dina ma jaaxal sama gars yi barki yàlla image bi image bii ngeen di gis nii non Tapha Tine bëre indi ko <laughs> leen wax gëmuñu Tapha Tine règlement de compte la indi si combat bi ak jël bakkanu Balla Gaye Balla Gaye fii moom ngeen ñaan ko si njëkk mu delloo avance avance bii <laughs> bilaay dina ko daan yëkkuwaale ay bëñ yóbbu ko daal c'est te te te te mais yéen gis ngeen image bii nii lii mënul nekk waaye mais nag image bi dama ko gis <laughs> ne lii du dëgg parce que man lamb ji signature contrat ba pare seetaan image bi laa njëkk a gis après ma gis ñoom ñaar seen signature contrat léegi dañ dem seetaan signature contrat ngeen xam ne du montage seetlu ngeen kii nii Malick Thiandoum bi muy jox kii eh, micro bi di def nii <laughs> mënul sax taxaw normal naan nii loxo bi di nañ seetaan Balla Gaye ak seen face à face ngeen réew a Balla Gaye di ko làq angale ci naan ko sa def fi mu taxaw la taxaw ba léegi mooy dama koy duma daan parce que fi mu taxaw la taxaw parce paas dama koy duma daanu kon dama koy dama daanu ko dara mënu dox sama diggante ak moom ma duma ko daanu loolu la am lu wax. das war a diis. Tapha Tine waxam sax dafa diis. la ilaha illallah. déggoo anglais da ngay wax olof. ki nga wax mooy ngay war a bis. this guy you lied man. this guy li lied. shut up man my bro shut up. shut up man. la tafaati ñi fi taxaw ñëpp moo leen tiim. xam nga wax boo ko déglu ngay nopp kii bu mooy duma moom. anyway moom moom nii la mel naturel ñëpp xam nañ ko ko. nii lay mel de amul wax de. yow yow yow yow. amul yow xool ma bu wax nga yow yow yow ba kañ. xool moo gën nga Balla Gaye neen day napp tafaatin de anyway maa ngi nii Balla Gaye neen day napp tafaatin de nga yërëm tolu moo ci bokk yam nga wut ay ndimbal moo ci bokk yam affaire bi amul Balla Gaye ñëm na fit doo duma daan la mu ngi taxaw muy yow doo duma kenn man maa ko duma daan ko même ma ma taxaw yow fii yow maa la duma fii yaa ko duma daan ko mais maa la duma yow <laughs> fii maa la duma booy ñaa fii la Balla nii day xaru yéen Bombardier fii yow maa la duma yow yaa duma ñëw ñëw yow dama la ci tàgg stress ngay génne <laughs> Balla Gaye nee daa bëgg a reetaan barke Serigne Touba Mbacké stress ngay génne you do bi tafaatin naan ha ah, Balla Gaye dal Balla Gaye am na fit gis ngeen Balla ni mu ak Tapha Tine ni mu bi ma gisee lii ma ne ma ne Tapha Tine day mbëw rek après ma dem seetaan seen combat bu njëkk ba ma xool xoolaat mais Tapha Tine loolu def na 10 ans seen combat bu njëkk ba ak léegi bu dee ni nga bëree woon bu njëkk ba noonu ngay bëreewaat non da ngay ñaax de léegi nañ xool Tapha Tine Balla Gaye seen combat bu njëkk ba ñu ne maanaam seen. suuf la waat nañu. dër na Balla Gaye Tapha Tine ñoom ñaar ñu ngi lay lewantoo. waaw taxaw na waaw rek. Balla Gaye ci kaw. balaa ngi doon ci kaw. balaa ngi doon soxal. balaa ngi doon. corno balaa ngi doon. corno balaa ngi doon. corno. laay laay la la. bàyyi woon balaa ngi doon. waaw dem baala jël ko. tafatin bañ na ko tafatin ko. tafatin ko balaa ngi doon tafatin. bañ na ko balaa ngay daan tafatin. balaa ngay daan tafatin toog ci kaw. balaa ngay daan tafatin toog ci kaw. combat bi yomboon na trop te te te ci diggante bi tafatin yokku na. am na expérience Balla Gaye si diggante bi ay tolof tolof rek la doon am bu dee combat bu njëkk ba ak bii da ngeen jàpp ne day am différence wax leen ma ko ci commentaire yi bu dee da ngeen jàpp ne Tapha tamit <laughs> ngeen wax ma ko. gars ñu ñëw ci combat démb bi ah ñu xool ma joxe sama analyse si combat démb bi démb combat bi seetaan naa ko mais dama ne Eumeu seen buy takk Sa Thiès di ko daal moo tax Modou loo Eumeu seen moo loo musul may Eumeu Sène fu mu ko takkee ñu seetaan combat day dóor ndax ko takk takk na ko téye xam na takk bi du bàyyi takk bi du ko bàyyi takk bi lay jël takk bi filifalam filifalam na ko gis ngeen filifalam na ko li leen wan ni Modou Lo dafa mën a bëre Modou loo dalay daan ba pare may la kele Modou xarañ lo mais sama gaay bu waxante deug rek ah instant yi di ji lii moo fi am wa parcel ñoy nogatu wa piket, wa Pikine di way wa geejjo way mom nogatu ñu wa parcel de ha ah, nogatu ñu wa parcel falaay yem. mu koy ñaanal. xoolal mel mu koy ñaanal. mu koy mu koy. Imaam dafa daw sama yaram barki yàlla. waaw ah, li mooy demal nga daan demal demal nga daan demal sama yaram daw man monsieur xol bi laal. mu ngi naan ko demal dugg ko daan ko gaynde la voilà dama ko demal yaa xam mën demal am ma seen ngeen demal ndeysaan Ronaldo dafa taw yaram demal xoolal meer bi xoolal meer bi xoolal meer bi ndeysaan meer bi jooy oh xool day soog def ba suñu tuuti sama gars yi li ma nekkoon vidéo bi démb combat yi neex na ah Petit Lo moo daan dafa mbër ndeysaan sama mbër bi daan nañ ko mais du courage xama góorgóorlu jàppatoo bàyyi rek xama yeneen ndam mi ngi ñëw combat yu neex combat yu neex démb am na combat yu neex poxolaa Liss Ndiago combat bu see topp ak yeneen combat yeneen combat aimez la vidéo partagez ko ilal liqa ba beneen yoon